fekkee jotaay bi di ca kanam ca kanam ni ñu ko defee àjjuma bu nekk ànd si ak euh, yéen sunuy téléspectateurs sunu ay technicien sunu ay gan ak sunu ay naataango tey euh, Fatou ñaa lañ si àndal Fatou di nuyu la ziar. waaw la nuyu di gàmmu gisewuñu ah, donc voilà di la ziar ci gàmmu gi. di nuyu suñu invité yi donc principalement ay personnes liées à l'environnement donc thème bu important. di ci am mbégte di leen recevoir di am mbégte encore renouvelé d'être sur le plateau jàkkaarloo ak suñu téléspectateurs yi qui sont la toujours pour nous donc di am benn notice benn naka rek par rapport à ce qui s'est passé avec la jeune dame assassinée par son mari donc di déplorer toujours en tant que féministe en tant que femme en tant que mère ce ce phénomène. waaw euh, loolu moom euh, kenn mënu ko rafetlu euh, mais léeg accident de maanaam. jëkkër ak jabar di xuloo ba yegg ci xeex ba mu dóor ko ba mu génn àdduna xam nga du nit ki tey daal lu ma foog waaw nit mënu ko tay di ko def ku lucide en tout cas du ko def wala nga xam ne lucide doo comme lui on parle de drogué que c'est un drogué peut-être cas yooyu moo tax nit di ko def hmm. violence conjugale am na mais am na ay limites quand même loolu loolu loolu dëgg la mais violence conjugale si boppam euh, moom moo warul ndax léeg-léeg euh, mun na indi tarxiis yu mel nii euh, hmm. kii génn àdduna yàlla na ko suñu boroom jéggalaay baakaam dugal ko àjjana tey Awa Diack ñu ngi ñu ngi koy ziar moom tamit tey euh, àndul ak ñun euh, sunu gan yi tey euh, Macoumba Diagne moom moo ne nii Macoumba jaañ moom moo jiitee Proplast Proplast moom ab kuréel la boo xam ne lii liggéeyam moom mooy récupérer jëlaat plastique defaraat ko toggaat ko ba mën koo jëfandikoo waat gis nañ si si réew mi yëpp ñoom ñu def seen ay publicité di wax nit ñi nañuy indi plastique dañ koy jënd sax ñoom su ko defee Euh, defaraat ko Makumba di maa ngi lay euh, fay euh, Tunkara di nuyu tamit sama naataango yi ma bokkal plateau yi di nuyu aussi mbooloo mu suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp di fekk si rek faatu ci li mu wax léegi di lu tiis bi nga xam ne wax na ko par rapport ak femme bi génn àdduna. Fatou da nga bëgg féministe yi ànd ak di ko di ko ñaanal. di ànd ak moom quoi. non parce que tiis la quand parce ah, que dafa commencé di bari. Ah. parce que gis nañ fi yu bari mais tout le temps da ngay dégg mu ne nit dóor na jabaram jam na ko xa Sénégal xamuñu woon loolu. Ah, mais yi tamit am na ñoo xam ni euh, jabar yu rey seen jëkkër yooyu ci ci couple yi la ci couple yi la. donc cela veut dire kon Sénégal kon war nañu xoolaat jikko yi. donc di rafetlu jotaay bi euh, di feddali rek li nga wax ci maanaam structure bi nga xam ne man maa koy jiite muy Proplast. di société boo xam ne. dinañ dinañ ñëwaat loolu si. Euh, voilà dinañ si ñëwaat léegi gën ko leer Ma Anta Mbow moom docteur en euh, écologie agroforesterie moom gëstukat la fële ci ISRA. Euh, Ma Anta di la nuyu la dalal la ziar. merci Tunkara di la nuyu yow tamit di la dalal bi la ziar du nuyu suñu naatangoo yi nekk ci plateau bi di beral nuyoo sama jigéen sama xarit xamante ni xame bi yàgg na. ñu bokk benn xarit aussi di ko nuyu moom di nuyu mbokku téléspectateurs yi yi ñuy déglu yëpp di euh, di déglu ci question yi pour ñu am lu ñu leeral ci lu waral li ñu tuddee alam bi ñu koy wax environnement walla écologie muy terme boo xamante ni dina xaw a jafe ci wolof mais environnement li ñu gën xam. Euh, Ikori Seydi moom dafa jiite kuréel goo xam ni ñoom li ñuy def mooy inventé mais nag. innover euh, plutôt inno ah. innover innover innover inventé sorante wuñ la. waaye si wàllu lépp lu jëm si li ñu wër. Euh, muy euh, nature bi Ikori Seydi la nuyu la dalal la ziar. merci Tounkara ci invitation bi. merci également à madame Fadignan ci invitation bi. di nuyu samay naataango. di leen féliciter ci liggéey bu am solo ba ngeen di def nii maanaam yee askan wi. alors maa ngi tudd Ikori Seydi nekk euh, à la tête d'une bu ñu naan les innovateurs de la nature euh, c'est une organisation à but non lucratif qui est implantée un peu au Sénégal mais également dans la diaspora euh, sunu sunu naataangoo yi ñu àndal yëpp tey nga xam ni ñun ngeen di gis di ñu dégg mais ñoom ñooy def liggéey bi ci ginnaaw ñoo ñëpp dañ leen di ziar sunu ñawkat moom mooy baar first class fii ci Liberté 4 ak Castor moom tam euh, di ko ziar euh, tey dañuy wax si wàllum euh, environnement environnement mooy li ñu wër li nga xam ne fi nga xam ne li ñuy dund environnement nag jëm si wàllum suuf si ndox mi ngelaw li gàncax gi biir suuf si rabu àll yi yooyu yëpp si biir environnement la bokk ba ñun ñii sax si biir environnement lañ bokk Euh, environnement boobu li ñu wër suñ ko saytuwul suñ ko toppatoowul soo moytuwul ñun feebar dinañu yomb gàtt fa nit euh, dinañu yomb euh, docteur Ma Anta yow si loolu ngay yëngu environnement doon loo xam ne si àdduna bi tey lu ñuy lu ñu fonk la parce que àdduna bi ni muy doxee dañ dem ba gis ni que environnement bu ñu ko sàgganee rek soo moytu ñun ñëpp daf ñuy faagaagal tey yan leeral moom moo war a Euh, moom moom moo war a ñëw ba sénégalais yi gën a xam environnement gën ko fonk gën a jëflanteeg moom. Euh, merci Tunkara euh, di la gërëmaat bu baax di rafetlu jataay bi émission bi di la suivre à chaque fois ngay poser ay questions yu pertinentes ñu dugg tey ci tomb boo xamante nu mooy maanaam li ñu wër ñu tuddee ko environnement. Euh, arab di ko wax xaalam wolof nag sàcc baatu euh, arab bi di ko wax xaalam euh, environnement nag boo xoolee mooy li ñu wër li ñu gën a jige fi ne man mii toog fii yow ci sama environnement nga bokk mu wuute tuuti ak li ñuy wax écologie te nit ñi di leen jaawale parce que écologie moom science la boo xamante ni dafa am ay jumtukaay yu mu utiliser pour ñu mën a càmbar jëfandikoo jum euh, étudier maanaam càmbar suñu environnement environnement boo benn différence bu xaw a kii rek bu environnement dem na ci ba kiy tëgg sa wet di la defal pollution sonore kooku sa environnement la bokk alors que écologie du traité question yooyu mu nekk euh, sujet yoo xamante ni sujet d'actualité la et d'avenir euh, mu dem ba tey ñun scientifique yi nekkoon ñu tudd ñu ay écologue ñu am lu ñu tuddee ay écologistes yu ci ñëw écologistes yi mooy ñi nga xamante ni dañuy defendre nature bi te du ñu nekk ay scientifique yu étudier nature bi euh, ñu dem a dem ba tey mu am ay parti politique sax judd ci ay ñu nekk leen ñu tudde leen l'écologisme mu am ay parti politique yu bari fii ci Sénégal xam nañ fi Res les Verts fële France xam nañu parti José Bové ak euh, ñoo ñi nga xamante ni ñëpp les Verts maintenant question bi nit ñi gën a posé wu tey nag mooy lu tax suñu jamono bi tàng ak yan danger la xam nga jamono bi tàng mooy li effet effet nag wuute nag ak impact effet yi mooy tàngaay bi impact yi nag mooy li muy ni mu jeexital bi muy am ci li ñu wër ak ñun euh, ñu ngay dégg aussi ñuy wax ay gaz à effet de serre ñuy wax pollution ma lay xamal ni tey bu effet de serre amul woon àdduna bi kenn du fi dund ndax dañu am lu ñu tuddee ay gaz naturel ñu nekk ay gazu pour def effet de serre ñu tudde leen vapeur d'eau mooy cooloolu ndox mi muy CO2 muy euh, méthane muy euh, euh, gaz yi nga xamante ni ay azote la wala ay soufre yooyu yëpp daf ci am taux bu naturel bu normal boo xamante ni dafa nekkoon ci boo demee ci atmosphère bi couche bi jiitu ñu tuddee ko troposphère foofu la ñuy nekk di fa bu normal lu tax ñun ñu tuddee ko effet de serre serre mooy li nga xamante ni dañ ko ak jaaru mbaar la bu ñuy teg pour am benn tàngaay bu nu am ci suuf pour gàncax gi yenn gàncax yi mën faa dund loolu tax ñu tudd ko effet de serre même chose bi la gaz yooyu def ndax gaz naturel yooyu bu nu amul woon tey température globe bi dix neuf moins dix neuf degré lay nekk te moins dix neuf degré kenn du ci mën a dund léegi nag dañoo def bi gaz yooyu amee moo tax ñu am ci surface globe bi lu tudd fukki degré ak juróom muy quinze degré mu permettre dara dund mën a am ci kaw suuf léegi nag lii problème bi li indi problème bi tey mooy ci doomu aadama bi nga xamante ni moo nekk ci euh, li ko wër moom dafay def lu ñu tuddee anthropisation maanaam dafa am ay jumtukaay ay jëfandikoo yu muy jëfandikoo ay lu muy def pour dundam loolu nag moo créer ay niteem pour niteem pour mën a nekk loolu nag moo créer yeneen problème yuy créer gaz yooyu ba gaz yooyu dem ba ci kaw nag yokk effet ba ndax bu ñu fàttalikoo ci écologie dañuy wax ni énergie moom source bi soleil bi la mais couche d'ozone bi nekk ci kaw troposphère bi mooy fexe ba rayon UV yi du yegg si ci suuf léegi day am yenn rayon yuy jàll ñëw ci suuf rayon yooyu bu ñu jàllee ñëw ci suuf dafa am partie boo xamante ni suuf da koy absorber ak li ko soxla yëpp ak liy dund partie boo xamante ni daf koy réfléchir réfléchir mooy mi ngi mel na nga jël torsu dóor ko ci seetu doo ko mën a xool ndax day dellu si looluy dellu ci rayon yooyu ñu tuddee ko albédo nag loolu mooy indi tàngaay bi bu demee ba ci kaw ñu téye ko foofu léegi nag comme gaz à effet de serre dañu ëpp loolu tàngaay boobu dafa dem ba ëpp. léegi nag tàngaay boobu. moom moo tax ba léeg-léeg euh, géej yi ñu ne dafay dañuy gën a fees. waaw wala taw. Euh, taw yi tardé wala ñëw ak doole. Euh, mu am de léeg-léeg ay ñuy woowe ay ouragan. xam nga yooyu ci impact yi la. effet bi mooy tàngaay bi. loolu ci impact yi la dinañ ci dinañ ci ñëw ndax impact yi moom la ñu gis dañoo xëy xëy rek gis yooyu mu bett nu alors que à l'origine ñun xam nañu ni ñun ñooy principal cause bi ñun ñoo ko waral. yooyu mi ngi doon togg depuis bu yàgg. voilà gaz yooyu suñu ñun ñun ni ñuy dundee. waaw moom moo léeg mooy ëpp. waaw ba ñun dañuy ëppal. voilà si ni ñuy produire gaz yooyu. waaw mu dem ba indil gàllankoor alam bi. léegi nag loolu ñaari façon production moo ci am moom la ñu tuddee la pollution diffuse. pollution diffuse mooy li nga xamante ni mooy jóge ci échappement oto yi mooy jóge ci industrie yu ndaw yi mooy jóge ci peut-être gars yi recycler ndax ñoo ngi recycler di defar alam bi waaye ñoom ñoo ngi produire loo xamante ni day yàq sax lu bëree bëree bëree bëri beneen bi ci des mooy ce qu'on appelle la pollution ponctuelle pollution ponctuelle nag soo ko gisee rek fii ci Sénégal daanaka sooy xool da nga naan saar la peut-être euh, ngeen ñu baal ma Sococim parce que ñoom ñooy jugement yi ak industrie yu mag yi nga xamante ni ñoom dañuy produire yeneen type de gaz yoo xamante day dem ci kaw échappement yi dafa am gaz yu muy produire ci gaz yi naturel yooyu yëpp dañ ci yokk industrie du froid bi dafay indi li ñu tuddee les carbon yu boobu nag moo ci gën a dangereux. CFC yi yi ndax CFC CFC moom day day capter rayon UV daal di koy transformer tàngaay boo jëlee gaz ñu koy wax n boobu euh, moo gën a mën a tàngal cent vingt neuf fois gaz carbonique parce que gaz carbonique man nga ko produire lu bari mais dafa am loo xamante ni moom moo koy capté. mais euh, léegi docteur yooyu euh, am na solo nga nga leeral yu technique yooyu. Ah. mais tey ah. ñun ni ñuy dundee ñun ah. tey Sénégal. loolu nan lañ ko mën a nan lañuy ñuy moom ñun. jëflante bi nag ñaar la. boo xoolee si monde bi sax ñaari ñaari euh, terme la ñuy utiliser adaptation ak atténuation man nag dama ci yokk anticipation boobu sama kii bu dinaa la lan mooy atténuation atténuation mooy ñi nga xamante ni ay pollueur lañu te di polluer pour économie pour am économie bu dox pour ñoŋal seen dund ñooñu ñu wàññi. ñu mel ni ak ñoom Saar ñoom Sococim. non Saar ak Sococim doo leen tudd parce que fii Afrique moom man nangu ma ñu atténuer ndax ñun amaguñu doole. ñi war a atténuer mooy ponkal yi kenn ki ci gën ëpp doole moom dafa lànk ni moom gëmul sax changement climatique. gëmu ko. Russie ñooñu dañu parce que ñooñu su seen économie dañ koo fondé ci loolu ga luñ ci wàññi lu mu tuuti rek day na sax ñun nag wax dëgg yàlla faaw ñu suñu jugement pétrole yi bu ñu demee ba commencé def loolu nag la ñuy nekk ay pollueurs vrai mais dafa am pollution diffuse boo xamante ni dafa ëpp. ci ah, Sénégal surtout moo tuddee ko les ci surtout ci métropole yi surtout bi jóge ci ot ci oto yi. Hmm. ndax euh, rapport OMS 2018 bi mu jegee génne nga xam ne ay données 2016 la traduire dafa ci transformé 300000 véhicules mu am Dakar ci dëkk boo xamante ni 3,3 millions de personnes ñoo fi dëkk. mu nekk ci 0,8 euh, pour cent surface bi muy 55000 kilomètres carrés te ñu ni at bu ne juróom-ñetti téeméer oto dina ci yokk soo xoolee at oto yooyu li ñuy produire ci gaz ci suuf ci gaz ci seen euh, kii bu ci amul catalyseur. ak ñun ñi ñëpp léegi dañoo yor frigo te frigo frais woowu CFC bi moom moom mooy yàq couche d'ozone bi li ci ëpp beneen bi ci des li ñu tuddee méthane méthane li ci ëpp ci càmm gi lay jóge ndax euh, neefere yi ak ndéef yi bu ñuy transformé dañuy libéré méthane waxuma la nag ay ñoom bëbës ak yooyu naan ci agsi bu la neexee mais lépp loo xamante ni matière organique la buy transformé aussi day libéré méthane méthane bi bu demee ba ci kaw tamit moom it day yokku day yokk day yokku kii maintenant ni ñu ci war a taxawee atténuation loolu la ñoom ñoo war a aj adaptation nag mooy dem nañ ba gis phénomène yoo xamante ni mi ngi mi ngi fii ñëw suñu alam bi mi ngi commencé ñàkk garab da ngay toog di xool genn garab muy naat ba ci yàgg mu dee doo xam lu ko rey nga gis ay picc ak ay jur yu doon yu fi doon am nga leen di jàpp di njanaaw yooyu faatu léegi dafa dem sax problème bi mu gën a kii am nañ fi ne nii am nañu migrant de guerre am nañ ay migrant fu njëkk mais ci kanam tuuti ay migrant écologique la ñuy am kon ñu war ci anticiper léegi nag ñu war a def li ci ñooñu phénomène yaa ngi dañ ci war a adapté wu. Euh, euh, loolu mooy adaptation. Fatou maintenant ñaari soo leen boolee. Mhm. dañu war a anticiper ci ëllëg. ndax dañ ni fii ak 2040 bu ñu deful ndànk am nañu augmentation d'un degré dañ koo xayma woon ci bu gën a sore mais bu ñu deful ndànk 2040 dinañ ci yegg te buñ ci yeggee day indi la fonte partielle des glaces. ma jox la benn banquise yooyu banquise yooyu tey jii tey tey bu glace yi am ci àdduna bi yëpp. bu jëkk jékki loon fondre. maanaam seey seey. le niveau niveau mer bi ñu am dina gën a gudd quatre-vingt-trois mètres. Hmm. kon léegi da ngay xam ni Dakar ak ville yi nekk ci boor yëpp dañuy dañuy dañuy seey te lii ñuy def buñ ko tool bu buñ ko buñ ci. amul xel mu dal buñ ci amul xel taxaw seetlu changer suñuy méthode fa leen jëm. te ah, changer suñu méthode fa leen jëm. donc fi ngay daanelee laay ñëw en fait. parce que mm. waxoo ko léegi. Mm. les activités industrielles. Mm-hmm. ñoom ñoo nekk en grande partie responsable du changement climatique. Mm-hmm. quand on parle d' activité individuelle. Mm. on pense à qui aux pays développés. Ah. donc ñoom euh, le problème ci la fa la war a accentuer wu. Mm-hmm. l' Afrique n' est pas encore suffisamment développée. pour di départir de certaines industries et autres. Mm. war nañ mën a àgg sax benn niveau bi man mm-hmm. loolu laa gëm mm-hmm. bien que parfois il faut tenir compte de l'aspect écologique c'est vrai mm-hmm. mais je trouve que euh, comme lu ñuy war a def au niveau des grandes encore internationales mooy par exemple insister pour ñoom ñu jouer le rôle qu'ils doivent jouer c'est-à-dire réduire carrément seen niveau d'industrialisation mais également comme tu dis adaptation bi c'est c'est très important c'est fondamental maintenant fii au niveau du Sénégal partout d'ailleurs mais surtout chez mm. li ñu remarqué mooy l'homme est responsable en fait de tout ce qui nous arrive. Mhm. dañuy ñëw xoolal la côte sénégalaise la mhm. sérieusement menacée de disparition. Mhm. de Dakar par exemple à Saint-Louis. en passant par Bargny fépp partout. côte yi da nga doon ñëw sali benn hôtel léegi. voilà ndox bi fii lay toll. Mhm. alors qu'avant. Mhm. voilà dafa di gis nga ni mu doon toll. sa mhm. ça extraction sable marin bi par exemple. daf ci jouer nit moo koy def jël charrette am duy suuf si. donc géej bi ñëw avancé yooyu yëpp c'est c'est important. garab yi kan moo koy dagg. nit ñi ñoo koy dagg. à des fins écologiques parfois euh, économiques plutôt. donc saleté bi mbalit kan mooy sànni heureusement que les plaques est là mhm. pour di récupérer les déchets mhm. nit mooy jël sànni également la déchet mhm. donc l'homme étant responsable de tout cela moi je me dis que c'est sur lui qu'il faut agir donc oui mais mais dafay dafay poser problématique wu euh, éducation environnementale bi nga xam ni léeg dafa xaw dafa xaw a manqué fii si ñun mais euh, parce que li Fatou wax euh, pour man manta dañu war a bàyyi xel ni tubaab yi ñoom seen économie. Mm-hmm. biñ koy sanc mm-hmm. ginnaaw guerre mondiale. Mm-hmm. deuxième guerre mondiale. bàyyiwuñu woon xel. wàllum environnement ak écologie. moo tax ñu teg industrie yoo xam ni dañuy polluer. ñoom xam nañ ko ba fi mu toll nii. Euh, yu si bëri ñu ngi jéem a wàññi. xam ne que fii fii fii fii du yoon bi. donc ñoom noonu la ñuy polluer ak tamit seen. Euh, agriculture ñoom li ñuy bàyyee tamit dafay dafay polluer bu baax euh, surtout ndox mi ak euh, engrais yeeg produits chimiques yi dugg si nappe phréatique bi mais ñun ñii tey faatu wax na ko ñun ni ñuy daggee garab yi mais loolu maanaam luy yàq aalam bi la ba indi tamit gàllankoor bu mag donc man duma ni rek ñoom ñooy polluer mhm. ñun ñuy subir conséquences yi mhm. ñoom tam dañuy subiir conséquence parce que ay pluie acide ak gis ay Allemagne ak yooyu ah ñoom gis ay ay Russie ak mhm. am nañ yooyu mais ñun tamit dañuy yàq alam parce que ñun kenn yaruñu si sàmm alam bi xam nga li nga wax euh, dafa nekk dëgg ba tey ci Sénégal ñoo ngi estimé à trois cent terrain de football chaque année la ñuy yàq ci ñuy ñàkk ci forêt maanaam lu ko waral dagg ak aussi avancé avant avant maanaam désert bi jógee Mauritanie di ñëw ak euh, nit ñi jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo suuf te du yoon. te nañ ko jëfandikoo. Mm. mooy li mu doon wax. loolu nag euh, dafa am li ci am solo mooy prise de conscience boo xamante ni nit ñi dañu war a def takk ni lu tax ñëpp di coow ci Sénégal lu tax ñëpp di coow wax ren ñëpp jë tëbandoo rek ni écologie écologie environnement environnement parce que ñi xam dañoo tiit. Mm-hmm. ñi xam dañoo tiit maintenant. ñi xamul dañ leen war a xamal te moo tax sa émission bi am solo te bu ko xeeb euh, tey li mu wax ni l'homme est responsable moo tax om bi responsable mu def li ñuy tuddee jëm si ce ko appelle la transition écologique jóg a ñëw ci li ñu tuddee agro écologie boo ñëwee si agro agroécologie nag léegi dañuy ñoom fexe bay mbay mu amul tooke. gis nga tubaab yi ñoom léegi dañuy am sax ministère. waaw de la transition écologique écologique. parce que bu ñu fa demut dañuy am problème. tax ñoom amoon nañ problème yi dañu dañu dañu dañu dañu loolu taxoon sax ñu indi énergie nucléaire un peu waaye énergie nucléaire aussi day produire ay déchets déchets yu xaw a doy waar yoo waaw yoo duñ xam fu ñu koy def léeg-léeg sax ñu ne dañ koy tuur ci suñu géeju Afrique yi mm-hmm. moo tax ñu si bari ñoom ñoo ngi ci rocceeku ndànk-ndànk kon solution bi ni ñu tuddee énergie propre te ñun dañ ci bari le muy jant bi jant bi ngelaw li ak ngelaw li mm. ak ndox mi géej gi waaw beneen bi ci des Sénégal daanaka ko mës a gis ci Sénégal rek naan na ngeer wala mu naan rat wala mu naan xewar wala mu naan dara. dute wala mu naan dute. te ki boo doon wàññi ñi mës a jëmbat garab ci Sénégal nga doon def. ñun néew lañ daanaka doo am dara. loolu nag da nga naan yow garab yi ngay utiliser. tey kan moo ko fi jëmbatoon kan moo ko fi bàyyi ba nga jot si mais mais yow soo ko yàqee boo ëllëgee ñi ñëw ci kanam nan la ñuy def mais docteur ñun dañu am problème dama foog Sénégal ñun daf mel duñ dégg mais euh, Fatou yaa ngi fàtte Pape Niang jamono mu doonoon jëmbat garab waaw ndax garabay indi taw garabay indi naaj ci réew mi mais loolu depuis kañ la woon mais kan doo ko déglu parce que mbalxa ba saful woon parce que xam nga ñun dafa am yoo xamante ni euh, dañ duñ ci bàyyi xel wax dëgg yàlla nag suñu niveau d'éducation ci la bokk te nag lii problème bi mooy dafa amoon ñoo xamante ni muy suñu mag ñi liñ doon def lépp écologie la li liñ doon def lépp lépp lépp ndax am na mag ñoo xamante ni ba tey jii du ñu nangoo def engrais ci seen tool hmm. ndax engrais mooy drogue ci suuf su nit koo jox drogue day dem ba boo ko joxut drogue du fonctionner saa yoo defee engrais ci sa suuf te xamoo noo ko ci defee xamoo période xamoo ban nga ci def ndax dafa am loo xamante ne mooy tax nga mën a suul engrais faaw nga xam type de sol ba xam ban type de kii kañ nga ko ci def ak noo ko ci defee loolu lépp soo ko xamul xëpp ko ca mandi loo nga sa suuf la tontu léegi léegi docteur euh, li wér mooy affaire u aalam mhm. affaire u environnement affaire mhm. écologie mhm. moom saafara si mooy éducation yar nit ñi moo si jiitu yar nit ñi l'éducation ah. comme tu dis environnementale dès moo si jiitu man je me dis que dès le bas âge war na inculquer à l'enfant le culte de l'arbre par exemple il faut reboiser par exemple pour que bu reboiser wul demee. Mhm. problème yi mooy am. Mhm. c'est-à-dire sécheresse mooy am. Mhm. déforestation mooy am. conséquences yi lii la ak lii. parce que parfois l'adulte dafay passé comme on dit bant bu xaw a taxaw noonu pour dam pour boo ko buggee bëggee jubanti mën na dam oui mais mais mais Fatou man boobu nag ànduma si tamit. mag mag mën nañ ko yara mais mag mën nañ ko yara te mag dafa war a yaru tamit. xam nga mais c'est difficile. par exemple da ngay ñëw dox ñu gis benn mag mooy jël casse de café Touba. naan sànni. loolu dëgg la. l'enfant ne xam nga moom responsable na de moom mi naan kafe sànni. mais kii seetaan ñu def kaasu kafe bu dul bu dul dégradé wu. Mhm. loolu tamit nañ ci wax kaasu kafe bu dul dégradé wu. Mhm. xam nga man euh, euh, bi may bon ba léegi maa ngi jàngale sax mais dans niveau bu gën a kii li ma daan wax sama élèves yi ak étudiants yi. Mhm. dama leen wax ni boo leen demee si boutique. lépp loo leen mënul bañ def ci plastique bu leen ko joxee bu leen ko ci def ndax juróom juróom jënd juróomi dërëm mu tàngal ñu defal la ko si mbuusu ñaar dërëm mais loolu nit warul conscient di ko def te yow mbuus gi danga ko fi gis di ko fi gisaat dem marché indi diis mbuus alors boo jëloon benn leget dem boo demee nga séparé ay kayit boo ñëwee lépp da nga koy sotti raxasaat mais yooyu la nit ñi di war a kii jigéen ñi ak ñëpp moo tax li mu wax ne mag dañ koy wax li mu def parce que nit ki léeg-léeg dina xam li koy jëriñ mais da koy jige lool mais du ko xam. mais euh, loolu loolu loolu docteur. Euh, dafa am solo si ni que. Euh, ñun. tey par exemple. nan la ñuy yaree. ñiy dem marché. mais lu mais lu foofu lay tàmbalee. boo demee xool tey jii tey par exemple si géej yi géej gi ñëpp nga koy gis li fi nekk ci mbalit teg mbuus moo ëpp presque cinq fois li nekk ci continent bi ndax mbuus gi nga bàyyi moom ngelaw li lay topp bu demee ba si géej ga dafay tag mbuus bi nga bàyyi ci suuf fu mbuus bi nekk foofu noonu benn micro-organisme dootu fa nekk day dee ndax day étouffé wu su étouffé woo bu dee mm-hmm. micro-organisme yi nga xamante ni ñoo mën a moo ñoo war a minéraliser suñu matières yi nu fay sànni pour mën a nekk tos suñu utiliser waat du du du du ñoom ñëpp dañuy dee euh, boo doon jii uh-huh. ba toppal fa benn graine du sax te loolu lépp mi ngi suñ tool yi ñuy xas animaux yi buñ ko laalee animaux yi buñ ko laalee ci rumen bi lay des parce que du seey ci rumen bi lay des te loolu day day encombrer bi ba moom du mën a jël li ko mën a màggal moom moom tubaab yi di woowee sachet bi ngay jeté léegi mhm. sa arrière petit fils mën na ko fa fekk parce que 400 ans lay durer benn euh, plastique benn mbuusu plastique un produit non biodégradable mhm. donc ça dure moog gaz yi ñoo yam gis nga gaz yi ñoo gaz yi ñu tuddee CFC benn molécule boo ci yóbbu ci kaw suuf cinquante mille lay am ci kaw ci kaw suuf ci kaw ci kaw asamaan mais euh, docteur léegi ah. tey mm-hmm. ñun Sénégal euh, affaire bi graaw na graawul mm-hmm. bon graaw na mooy ñun suñu environnement nu mu mel nii mm-hmm. euh, vraiment rafetul ñun ñëpp teg si sunu bët tey mbuusu plastique ni ñu mel et mbalit yi fi ñuy fi ñuy nekk suñu environnement daal. Mm-hmm. jekkul rafetul mm-hmm. kenn rafetul responsable mm-hmm. bon loolu am na léegi léegi léegi docteur donc loolu pour man graaw na. mais pour man garaawul mooy. mbir mi mën nañ ko rectifier. Euh, très bien. maintenant euh, rectification bi nag maanaam jubbanti bi dafa am ay façon yu ñuy def benn bi mooy li ñu mën a wàññi ñu wàññi ko muy atténuation maanaam boo jëlee Dakar 300000 véhicules yooyu ban pexe ngay def ba. nga am transport de masse boo xamante ni su kooku jógee lu mat téeméeri junniy oto dinañ taxaw. kon lu mel ne BRT yi yooyu am na solo ak TER bi. ak TER yooyu parce que man tout projet buy écologie bu jëm kii te loolu c'est vision suba la. Mhm. du sax ñun njariñ mën nañ koo gis mais nañ xalaat ni ñun li ñuy dund suñuy maam ñooñu ko teg ak suñuy baay. Mhm. xam nga Souleymane Faye dafay wax naan li fi maam bàyyi woon bàyyi yàq na ko. est-ce que xale ñun nag ñun comme ñëw nañu te yàlla may nañu am xel ñoo ngi déglanteeg ñeneen. nañu bàyyil suñuy njaboot leneen loo xamante ni bu ëllëgee dinañ fekk ñu am ay jéego yu mag yu leen doxal. kon TER ak BRT moom. si wàllu BRT loolu dafay nekk une réponse écologique ci pollution bi day atténuer. Hmm. ndax tey jii yow doo mën a def sept mètres sept minutes géejawaay di hmm. dawal di dugali embrayage ba sonn. léegi bu fekkee doo doo nekk nitu personnalité boo xam da ngay nëbbut nit ñi. da ngay a sol sa yére ba mu njëkk nga dem dugg ca. te loolu réponse la ci atténuation. beneen réponse bi nekk ci atténuation mooy reforestation. maanaam jëmbati garab jëmbati garab. reforestation lu tax parce que gaz carbonique yow bi ngay noyyi muy sa muy sa déchet di sa tooke war a génn boo xam ne bu ñu ko tëjoo nii tuuti nga faatu. gaz carbonique boobu moo nekk matière première garab bi. garab moom lay dundee. moom lay dundee. moom lay nooyee. moom lay nooyee. boo paree di nokki di la jox yow oxygène oxygène bi nga soxla yow. moo tax boo bëggee noppalu dangay nelaw ci suufu garab moo gën a gaaw a noppalu fuuf nga nelaw ci climatiseur. parce que ngelaw li la ñuy recycler rek mais gaz carbonique bi génnul néeg bi mais fii nag boo kiiyee dalay jox oxygène di jël sa gaz carbonique di ko dundee. mais euh, léegi docteur. léegi bàyyi ma yeggale foofu. Mhm. léegi nag faw ñu indi garab yi. garab yi mooy def li ñu tuddee la séquestration séquestration di carbone. Mhm. séquestration boobu dina permettre carbone bi du du du yegg ci euh, kaw yegg bu bari boo xam ne ndax ndax carbone gaz carbonique bi bu yeggee foofu da ngay am CO2 plus o vapeur bi ma la waxoon léegi. dafay joxe HCO2 ce qu'on appelle les acides carboniques acide carbonique yooyu mooy tudd li ñuy tuddee pluie acide pluie acide nag ça ne veut pas dire que day taw foo xamante ni acide la mais le pH de l'eau bi nga xamante ni mooy wàcc ci kaw suuf mooy gën a wàcc su wàccee ndox mi day gën a acide mooy tax nga naan ndoxum ren mi de lewet na mag ñi xam nañ ko dan naan ndoxum ren mi lewet ndoxum ren mi lewet na bala na ñaanal naan yàlla la yàlla may ndox mu lawet léeg-léeg ñu la ndox mi daa weex suñu gàncax gi dañoo dee yooyu yëpp ak bi nga xamante ni aussi dafa nekk ci suuf si nappe phréatique bi te loolu jëfandikoo tooke bu ëpp la da ngay jàpp ni dangay ngay yokk sa production mais doo am dans la temps da nga xam ni perte nga. par exemple ñun suñu baykat yi. amul benn éducation environnementale bu ñu leen defal. am na nag am na am na ah. mi ngi am mi ngi am wax ndax dëgg yàlla foofu moom dama fi gërëm sama mbokk yi sama naatangoo chercheurs yi ku xëcc jëmale sa boor nag mu ku raaj jëmale sa boor mu dal parce que ñoom noppaluwuñu ñoo ngi dem di jàngale li ñu tuddee les bonnes pratiques agri horticole ak les bonnes pratiques agricoles mais pesticides yi mi ngi pesticides mi ngi persister waaye du tee aussi ñu continuer ñu wax ndax tey ji li tax mu garaaw boo demee si ñaay bii ñuy wax ni mooy euh, grenier horticole bi bay léegi nga bëgg yow ñaay boobu affaire bi gaaw nga def ñaay boobu xam nga ñun ñoo ngi ci àll bi tout le temps ñaay boobu da ngay dem ci waaju yor toolam xëcc fële ndox nga ne ko lii nag mu ne ma sama tool bi ndox mi léegi yàqu na parce que moo ci xëpp pesticide te amul feneen fu muy dem lu dul ci nappe phréatique bi te bu ca continuer di arroser la nekk ca ndox ma day dugg ci gàncax gi. léegi docteur euh, message bi tey euh, lan la lan moo war a euh, ban ndénkaane nga am boo bëgg jox ñëpp. ndénkaane bi mu am mooy nit ñi def li ñu tuddee prise de conscience. prise de conscience moo yeewu. yeewu yee seen bopp xam ni lu bari ñoo ngi koy def ngir ñoŋal suñu dund ñoo ngi rey suñu bopp te bu ko ñoŋalee tey bu subaa dina la poser problème boo xamante ni doo xam noo koy saafara. te li ñu war def mooy anticipation ndax léegi pollution gaz yi xamuñu frontière boo ko jëlee fee day ñëw fii et puis fi mu tiim dafa tiim ñëpp bu amee Mauritanie day am Sénégal léegi nag ñu teel ci ci suñu gouvernants yi surtout ñu teg ay projets yoo xamante ni day permettre chercheurs yi ñu mën a gëstu ci méthode yoo xamante ni day simple yu yomb ñu daal buñ ko defee ba pare ñu def jox ko population bi population bi. di ko loolu waa ministère de l' environnement nga bëgg waxal. non mi waa ISRA. parce que ministère de l' environnement duñ def recherche. defuñu recherche ñoom. ñun dañuy xaat ba pare ni méthode bi baax na. jox ko eaux et yéen agriculture moo leen ëmb. agriculture moo ñu ëmb. waaye li ñuy def environnement laal na ca pêche laal na ca élevage laal na ca. ndax ISRA est tey ministère de l'environnement ak agriculture ñoom. am nañ ay kuréel yu lëkkaloo. ngir xeex yooyu. am na comme ban am na am na ay plage yoo xamante ni sa maanaam euh, dañoo xaw a soree ñu nii mais dañuy def li ñu di unité d'action mais wax ñu benn kuréel boo xam ne ministère de l'environnement bokk moom kuréel MITS moom xaw ma ko ñoom nag li ñuy ah, def nag mais ndaje MITS am am na mais kuréel MITS amul te loolu boo si duggee mais ndaje MITS lan la dañuy toog wax rek parce que kuréel moom mooy porter ah. action yi nga xam ne moom mooy indi résultat tey mënuñu comprendre mm. ministère de l'environnement ak de l'agriculture amuñu mm. benn jokkool amuñu benn jokkoo mm. si wàllum Euh, environnement écologie. bien que loolu jaaduwul de. gis nga sax rencontre moom. les deux ministères sont toujours ah, ensemble. ah mais foog ñu ñëw travaillent en synergie en fait. waaw waaw synergie bi dafa war a ñëw ñu matérialiser ko par ay kuréel yoo xam ni dañuy dañuy dañuy agir. sinon dañ xam nga toog ñëw tase ay symposium ay ay ay cours ay kii wax yooyu naan ay affaire lekk ay ay petit four. xam nga yooyu yomb na. loolu ñëpp mën nañ ko mais concrètement lan lañ def concrètement dara dañ ko war a inculquer des euh, valeurs environnementales mais dama lay dama lay xamal ni la euh, mbir mi. butéel parce que docteur saa xam man maa la koy wax. Ah. man gëmuma ni que éducation environnementale. Ah. am na si paysan si baykat yi xam nga lu tax. Ah. tey bu fekkee waa agriculture ñi yor mbay mi. ak waa environnement ñu pour mm. dem si baykat yi. Mm-hmm. mais kon baykat yi kan mooy wax ak ñoom. xam nga dañuy lëkkaloo dañuy dem si baykat yi ensemble waaye tamit naa la xamal benn affaire xam nga nit ku ñuul nag euh, dafa xaw a dëgër bopp. yaay ñëw jàngal benn man dal na ma mais man su ma dalee damay am pédagogie. te ñu chercheurs yëpp daanaka noonu la ñuy def suñu ñëwee dañuy indi suñu xalaat waxtaan ak ñoom ba pare ni leen def leen seen suñu xalaat fii def seen xalaat ci wet gi bu ñu gisee résultat rek bu ëllëgee ñu bàyyi seen bas ñëw ci sa bas mais environnement yëpp ñoom ñëpp ñi nga xamante ni dañ parce que euh, moo tax terme agroforesterie gën a englobant moom mooy système d'exploitation boo xamante ni mbay mi ak garab gi ak càmm gi ak nit ki ñoom ñëpp dañu daje. en tout cas yeewu yeete bi ngay wax. Euh, loolu tamit war nañ ko wax ñi jiite. parce que environnement ak agriculture jamono jii ñu nekk. amaana démb de loolu mënoon nañ ko mënoon nañ wax démb ni que daaw waaw mais fi mu toll nii moom. dañoo lëkkaloo. lëkkaloo boo xam ni. waruñoo bañ am ay kuréel yu ñuy liggéeyandoo di xàccandoo di dóorandoo. loolu warta am loolu moom sunu sunu sunu tardement la boo xam ni. Mhm. war nañ fexe ba ñuy jiitee environnement ak mhm. agriculture. vraiment liggéey si. par exemple gis nga loolu loolu am na. parce que environnement moom moom moo dafa mais tamit dama lay wax benn affaire. Euh, pour ma jox la benn exemple bu leer rek mi ngi mel ni santé humaine <laughs> xam nga kii faj bët kii faj nopp kii faj muscle ñoom ñëpp dina am fu ñuy déggoo waaye bu kenn ku ne jógee da ngay jawal fa nga jëm. wér loolu dafa am. maanaam dafa am unité d'action boo xamante ni buñ ko waxtaanee ba pare kenn ku ne da ngay dem kii yegg ca mbay ma kii dem ca càmm ga kii dem ca garab ga kii dem ci kii mais ñoom ñëpp déggoo ci ginnaaw wax ba pare kenn ku ne di xam boo yegsee fi nga yem la ca kee war a dolli. mais yéen PSE. Ah, PSE ah. suñu document de référence. Ah. ci rôle bu. E, benn yoon la ci foresterie yi ñëw. benn yoon la ci foresterie yi ñëw man liir naa ko mais benn yoon la si ñëw. waaye nag daa mel ni daa mel ni nag dab dabaatal nañ ko ci programme 5 3 5 bi. Hmm, ndax indi na programme boo xam ne day def reforestation. di agence. nationale de la refestauration et de la grande muraille verte. tout à fait kooku man saa yow ci jamono Ablaye Wade. muraille verte moo gënoon nekkoon sama projet moom laa gënoon bëgg. Hmm. jamono Macky Sall aussi amul benn projet bu mu teg bu ko ëpp solo ak terre bi. déforestation bi ak bi. Hmm. ndax terre bi mooy tax bu tunkaram yi buy dem tënge fële dootul jël oto. terre bi ak covoiturage ñoo yem. man na ku ma kenn wax ay ay yooyu. ça veut dire dafa am lu am prix am coût. Hmm. prix mooy ni butéel bi laay dem jënd maanaam weñu weñu atoraay gi. kese bu ñu ko génne bu ñu ko tegee ñu ne yenoon a maana mais da ngay xool ba ngay tàmbalee ña nga déqati ña nga yóbbu feneen ña nga fayal nii ña nga fayal laa ña nga fayal loolu lépp bu ñu ko dajee pour na nekk cinquante mille milliards man sama problème mooy que mm-hmm. man bu fi nekkee cinquante mille milliards te ñu te ñu leb ko def ko ca lekkuñu ko bu ëllëgee suñu doom yi dañuy xool nu ñu yokkee teer bi mu dem ci biir réew mi lu te loolu moo ëpp solo ñu nekk ci yenn gis nga ku koy critiquer rek c'est parce que li ngay xalaate rombul sa catu bakkan bii. non seulement prix bi bi la ñuy critiquer mais le caractère inopérationnel côté science bi fi mais ñu ñu li nga wax ni li nga euh, euh, dëggal la ko. Hmm. Euh, ñun ñu jàngee si réew tubaab yi. Hmm. foofu. foo mënti jóge par exemple Amérique. bi ma xam. Hmm. maanaam da da ngay dawal sa oto. ba benn gaar. nga bàyyi ko fa. nga dem dugg si otoraay pour dem fu gën a sori. fu gën a sori. waaw parce que otoraay bi moom. si wàllum euh, sàmm environnement. waaw vraiment otoraay amul morom daal. Ah, surtout otoraay yu électrique. d'autant plus ba terre bi dafa électrique. moom dafa xaw a semi mix li ma lay xamal nag mooy réew Afrique yi faaw ñu def anticipation écologique. Mhm. anticipation écologique mooy énergie renouvelable yi nga xamante ne moom la ñu yor. faw ñu góorgóorlu ci doxal ko wala ñu dem wuti énergie atomique ndax estimation bi ñu mujjee def en 2000 2000 lan ni rythme bi ñuy utiliser énergie fossile yi mooy pétrole beeg yooyu ni ñu ko utiliser nii bu ñu ko arrêté wul. 2080 hmm. pétrole day jeex si àdduna bi. Hmm. mais comme États-Unis moom daa denc pétrole am di jël pétrole lu jàmbur parce que il est stratégique. Hmm. hégémonie bi mu yor si àdduna bi bëgg ko dindi. dañ ni sax affaire bi mën naa bañ a yegg 2080 2050 pétrole jeex. 2050 dañ ko jàpp bu pétrole jeexee nag. ah bu pétrole jeexee. ñun ñi nga xamante ni dañ daan jëndi pétrole nu ñuy def avant boobu nag nañu góor góor góorgóorlu anticiper maanaam tey xaalisu pétrole bépp bu ñu bëggee sauver suñu as as Sénégal xaalis pétrole bépp bu ñu xalaat leen lu def ci lu ñuy luy remplacer pétrole bi. est-ce parce que ñun suñu pétrole bu dem euh, loolu am solo euh, docteur. parce que ñun suñu pétrole. Euh, bi ñu am ak sunu gaz. fanweeri at dong lañ ko mën a exploiter. xam nga 30 ans moom. dara moom si réew mi vraiment te te leen dafa am solo. si c'est en 2050 moom 30 ans du dara. te te leen dafa am solo. pour kiy jiite. Mhm. maanaam li ñuy wax rek ne. vision prospective politicien politicien moom. Mhm. li ko yitteel mooy élection yi di ñëw. Mhm. mais homme politique li ko yitteel mooy génération yi ñëw. voilà donc léeg-léeg nag. Uh-huh. yow booy jiitee uh-huh. dina am loo xam ni danga koy teg tey. Uh-huh. ñi koy jëriñoo dëgg. ak ñi xam njariñ li dëgg. doo ko fekkee ñoom ñu ngi ñëw. léegi nag waa tey yi. ñoom dinañ la ŋàññ. leen la yuuxu waaw yow nangam lu tax ngay def lii lu tax nga def sàngam te xam nga keroog samay samay étudiant dama leen di wax ne hmm. tey bokk na si barab yi ñi gën a euh, dem di seeti tour Eiffel ba nag Paris. waaw waaye jamono dañ ko tubaab yi di. sañ di tabax ah, ah. mais tubaab dañu ne dee li ñu ko fi doyee. ñun amuñu dara. monument de la renaissance da nga déggati ko critiqué. ñëpp ko def profil seen photo yi ak seen télé yi. lu léegi Dakar suñ koy wane moom la ñuy wane moom la ñuy wane. dem naa benn réew ñu naan bon waaw euh, dañu nar a dem dakaar sax moom ah. fan la ñuy visité. waaw fii Gorée. Mhm. Euh, monument la renaissance <laughs> donc euh, li li am solo léeg-léeg. Mhm. mooy li ma doon wax keroog sama naataango man leen. Mhm. yow léeg-léeg booy jiite. Hmm. yow sa li nga war a li la war a yitteel. Hmm. mooy ñaar. Hmm. liggéey ak résultat. yow ñaar moo la war a yitteel. mais ki nga xam ni nag. moom jiitewul. moom amul responsabilité boobu. amul responsabilité boobu. yow moom am na responsabilité wax. ak responsabilité jéem la déstabiliser. mais yow responsabilité wu liggéey ak résultat nga am. surtout nag. résultat pour ñu ñëwagul. ñu ñëwagul ñu bañ a xalaat rek ne bon su ma defee lii élection yi di ñëw. Mhm. loolu su ko euh, boo ko defee rek boo moytul mhm. di nga lajj te euh, di nga. léegi nag daf ci am benn bu ma ci bëgg a yokk tuuti xam nga soo demee dëkk yi gën a mag Allemagne ak yenn dëkk yi euh, Japon Chine ñooñu ñaari budget ñoo fa gën a ngan armée pour sécurité ak recherche. gëstu gëstu. Mhm. ndax gëstu. mooy euh, xam ah, nga. xam-xam dafa la mais yéen yéen gëstu tey par exemple. man budget gëstu fi ñaata la. zéro franc non ñoom dañuy trouvé non dañuy trouvé. ñoo ngi trouvé waaw ñoom dañuy trouvé. ñoo ngi gëstu. ISRA IDEA ñoom moom dañuy trouvé ñoo ngi te ñoo ngi li ñuy trouver mi ngi feeñ ci gafaka réew mi. parce que yokku nañ lu bëree baree baree bare ci ni ñuy doxe waaye tey ji dama lay xamal ne la franchement ak euh, fu ma mën a bokk dañuy dem di capter ji ay fonds pour mën a def suñu recherche. Mhm. te fonds yooyu ki la koy defloo. da la koy jox ay objectif yu leer. da lay yaay am sax xarañ nag comme ay fonds moo yow ba dee ba ca àll ba nga adressé yeneen question mhm. bokkaale ko indi. Mhm. mais franchement amul benn structure buy financé bu ma mën a dem man en tant que chercheur. ni am naa xalaat bi bëgg naa ko def. nañ ma jox xaalis ma def ko amul ñun docteur am na amul amul fii ci Sénégal amul. est ce que mos nga def demande docteur. amul fi moo yow koy waxee demande yu fi amoon sax dem na FRNA moo fi nekkoon dem na fës léegi amatul dara. mais docteur am nañ ñun. Ah, am nañ am nañ ministère bu environnement duñu financer recherche. lu ñëw bon continuer am nañ ministère. bàyyil yow si tool <laughs> am nañ ministère. de l'enseignement supérieur et de la recherche waaw waaw waaw xanaa am na xam nga xam nga xam nga nag xam nga nag ministère de l'enseignement supérieur de la recherche am na waaye li ma la wax euh, man nga ni ministère waaw ministère mën na am budget ah. mais ban part lañ ci jox recherche bi budget wu recherche si ñoom foofu ñaar xam nga boo nee damay fay docteur Mbow loolu ci but man nga ni ci recherche bi la bokk ah. mais soo ma joxul jumtukaay wala fi na foo xamante ni man su ma amee xalaat dem ba ca àll ba ma gis fa benn gunóor boo xamante ni moo yàq mbay mi ren ma man a ñu man ma ma daal di bind ni naa ko càmbar xool cycle biologique am nu muy dunde lan laa ko war a man a reye daal di bind ñun ma demal def ko ma ñëw recherche su ma recherche jox résultat bi daal di ko jox DPV DPV dem yóbbu rey loolu amu fi gisuñu ko fi direction de la protection des végétaux waaw direction de la protection des végétaux moom day xaar ba résultat am mu jël ko dem ñun nag du ñu rey gunóor waaye lay rey gunóor ñoo koy recherche ba xam ko mais mais kon ñoom DPV ñoom seen intervention comme ay njéeréer rek yooyu ñoom yéen yaa leen war a jox jumtukaay yi ñuy demee recherche moo war a gis bu bu nekk fii ak bu nekk bitim réew ndax dangay ngay gis gunóor da nga xam lu ko war a rey te la koy rey day yam ci rey ko te du yàq gàncax ga waaw loolu lépp recherche moo koy def te yow nee nga yéen fu mu toll nii amul lenn man de xaw ma ko man naa am bu ma génnee ma laajte mais man xaw ma ko. Euh, docteur <laughs> Ma Anta Mbow vraiment. moo tax nag bëgg naa euh, franchement. Euh. mën naa programme bi fi daw nii. loolu lu manqué la. lu ci manqué la te gis nga recherche boo defoon benn fond pour la recherche doo ko def pour kese pour béykat yeeg yooyu mhm. ñiy def musique sax dañuy def recherche lu wér ah, ah, sport bi dañuy def recherche waaw gis nga kii ñëw war naa mën def recherche waaw war naa mën a toog ba ci mun yàgg naa jënd ay si di ñëw léegi est-ce que bu ma demee ëcc fee Euh, ëcc euh, wëtteen. Mhm. du ma mën a defar dara. kooku dañ kaa war nga préconiser pour ça. financement rek ah, parce que ñi xam-xam yi am na fi. Mhm. gars yi jiggaan nañ ko gars yi ay jàmbaar lañu góorgóorlu nañ dem fu ne. mais yéen ISRA am ngeen budget. waaw mais am nañu budget mais budget bi euh, budget fonctionnement la. budget amul lenn investissement. waaw ah, ñun dañ ñun nag mais wax dëgg yàlla ñu ngi góor góorgóorlu nag. Mhm. ñu ngi wuti ay convention di am xaalis dem ci bit bi réew mi. di ànd ak baykat yi ISRA moom noppaluwuñu ça veut dire que ñooñu mais daal jumtukaay yi daal moo beneen bi beneen bi des tey jii bu ma taxawee ñu ni Tunkara professeur d'université ñun ma docteur Mbow chercheur yow lañ gën a jox gëdd parce que xamuñu ma te yow xam nga ni la ngay jàngale sax des fois chercheur bi moo koy génn ah waaw moo tax enseignement dafa am boo demee université dafa am enseignant chercheur waaw ISRA dafa am chercheur enseignant parce que enseignant chercheur yi aussi dem di jàngale ji ba pare ñoom ñooy capté ñiy def stage donc ISRA dafa nekk foo xamante ni. Euh, du ma a joxuñu ko gëdd de teg ah. yéen la valeur. oui mais ñoom ñu ngi koy jox valeur parce que ñoom ñu ngi dem su le terrain ñoom ñu ngi gëstu ñoom ñu ngi teg ah, parce que valeur tamit attention am na foo xam ni ah. euh, docteur soo fa buggee dem suñ la nee doxal nga traversé désert bi bon soo moytuwul euh, bu sang di dem ah am na ñoo xam ne dañ leen fa suul de mais mais looloo fa am loolu fi am maintenant nag euh, wax dëgg fa yàlla moi je les ay jàmbaar lañ no ISRA ITA vraiment ay ay jàmbaar lañ soo fa demee da ngay gis ni te gis nga amul benn question tey boo mën a posé wu bu jëm ci bool bi ñu tiim le panier de la ménagère boo xamante ne amul ISRA ce que am na pêche am na foresterie am na euh, ñiy toppatoo lujum yi am na euh, am na càmm wàllu meew am na càmm mm. am na napp mm. am na aquaculture am na lépp tey wax dëgg fa yàlla ni ngi ñu jàngee ñun ñun ñun ñu étudiants yi nga xamante ni ca ancien système bi leen jànge dañ doon am ay DEA mhm. gis nga DEA tey moom la ñu fukk def fukki master mhm. fukki master moo tax ku jógewaan DEA foofu rek boo demee da ngay mën ci classe bi jàngale mais boo demee benn master boo demee ci classe boo tax dañu créer master d' enseignement loolu nag am na solo ci benn côté ndax dañuy bëgg def adéquation adéquation spécialisation mhm. mais aussi nit ñu bato ñooñu nga xamante ni daanam foo leen sànni rek ñu dem loolu tamit amoon na solo association des chercheurs du Sénégal euh, association des chercheurs du Sénégal xew xawlal ñun gis nga euh, ay association ay ndaje daf ci am loo xamante ni wax dëgg fa yàlla orientation stratégique lay doon te orientation stratégique mooy ànd na ñi def def ko su joxee pare génne mooy def ci ñu li ci des wuti leen. te daal gisu leen tey euh, nguuru Sénégal man naa peut-être dama ko fàtte wala boog dama xool samay kii wala mais. peut-être fàtte woo ah. xool nga ah. dafa amul rek. non ah. docteur tamit affaire bi tamit non non non xoolal. Euh, lu ñuul mën nañu dafa ñuul ah. après ñu avancé day day gën a gaaw rek jàpp naa ni tey jii fekkoon ni man su ma bëggee at maanaam tunkara daa nga war a toog ba ci yàgg nga gis du la jaaxal nga woote directement ISRA ISRA ki nga woo ni diw moo ci am xam-xam mhm. yónnee ko question bi kooku dañ ko war a jox tontu. Mhm. suñ ko joxul tontu rek ñun fayir nañu suñu mission. Mhm. te moom problème boobu nu mu koy réglé dañ ko ñoom dañ ko war a jox jumtukaay pour mu bay lu ñu lekk. Mhm. mais kenn woo ko mu gëstu pour càmbar. ci variété yi mu ji mais tey xam nga li may wax ci ISRA tey jëmale fu ne nii li ñu tuddee le changement climatique man sax nangu ma période boobu. nangu ma ko terme boobu perturbation climatique yi indi na taw yi dañoo gën a gàtt. ISRA créé la variété yoo xamante ni ñaari weer lu ñor. du création nag sax. Euh, li ñu tuddee isolement la. Mhm. parce que ki ko jëkk def mooy Joan Sante isolement la ko tuddee on parle de l' de ligne pure variété. Mhm. mais kenn du créer rien ne se perd rien ne se crée tout ne se transforme fii moom création amu fi. yàllaa créé yàllaa mhm. léegi nag euh, créé nañ la ceeb boo xamante ni deux mois mu ñor wala trois mois créé nañu fexe nañu ba am isolé nañu ceeb boo xamante ni di nga ko mën a bay ci taw bi. yooyu yëpp nag moo indi résultat yi ci yenn ceeb yi ngay dégg ak ñu naan am nañu. tonne yi am tonne la déforestation bi. déforestation bi ndax tamit nag nit mënul nekk nit mënul nekk ci àll li ko wër lépp di àll xamul lu mu àll nga ni ko doo dund. Euh, docteur faaw indil ko lu muy lu mu jàpp pour euh, loolu loolu dafa dafa am solo te doomu aadama moom euh, bokk na si jubluwaayu dundam. moom mu fexe ba li ko wër. mu lijjanti ko. ba mu baax. Mhm. keroog dama dem fële si park ba. Mhm. mais euh, Sénégal am na ay rabu àll yu fi amoon yoo xam léegi amatu fi. amatu fi ñay amoon na fi. amoon na fi léegi ñay anamu amu fi. xam nga loolu dafa garaaw amatu fi de wax dañ koy gis ñoo ko loolu waaw mais kan moo ko kan moo gis. gaynde bi ñuy wax tey ba léegi attention sunu gaynde yi bëreetuñu. bëreetuñu bëreetuñu. bon ay ay ay léopard yooyu moom ñu ngi waaj disparaître. waaw. ay ay ñaar ñett ngay ngay ngay dégg donc ñun ñun war nañ gën a góorgóorlu ba mhm. euh, sunu yi nga alam bi nga xam ne bu daf ñu wër ah. ñu sàmm ko parce que aalam moom boo ko sàmm rek mhm. ñaar moom dina la yomb mhm. feebar ak gàtt fan <laughs> nañ wax Sénégal kan moo mën a toog ñetti weer jëndul ordonnance wala naanul reen certainement loolu mais tey xoolal docteur ay feebar yoo xam ne ñun xamuñu ko woon wala léegi da xale bu ndaw am AVC xamuñu ko woon. xamuñu woon yooyu xamuñu ko. léegi nag euh, gis nga hypertension yi jabet yi yooyu yëpp ñu ko wax c'est parce que ñun. sàmmuñu ñu sunu. environnement échappement yi tant que waxuñu ci yi. ci wax parce que yaa ngi nii yow am nga benn ñaari oto nga bëgg ki amagul dafa bëgg. waaw faaw nga jox ko alternative boo xamante ne du soxla oto. loolu mooy TER ak BRT. ak beneen bu mën a ñëw. aywa euh, transport euh, transport de masse yi. moom dafa waaw de masse yi covoiturage. da gis benn délégation. ku nekk sa oto. fu ko teg benn bu nekk ci biir oto. te mën nañ jël kaar fay ko dem ñëw mën nañ jël kaar fay ko dem ñëw. yooyu yëpp te moo gën sax ñëpp di waxtaan noo ñu am communion yëpp mais duñ ko def yooyu nag moo yu ndaw yoo xamante nit ñoo moo koy xam jii yow mi ko xam mm-hmm. di ko def dañ lay jàppe dof wala boog yow da nga amul ful parce que da nga xam xam nga xam ak ki xamul moom mënoo leen méngale mais ñi xam nag ñoom ñoo war a leeral ñi xamul mm-hmm. ba pare nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite mm-hmm. ñoom dañ ñu war a Euh, jàppale si si loolu tey euh, ay ministère de l'environnement ay ministère de l'agriculture ñooñ ñoom ñoo waroon ministère de l'élevage ñoom ñoo waroon jiite euh, liggéey bi nga xam ne moom mooy sàmm environnement ministre Abdou Karim Fofana delloo ko njukkal parce que mi ngi mm. mi ngi mi ngi tàmmal liggéey bu am solo si wàllum environnement wàllum cet surtout déchets yi mm. Sénégal moom mbalit moo fi am mais boo demee ci dëkk yu réew yi matière première yeneen dëkk yi matière première moo fa matière première dañ sànni ko rëbës moom nag euh, man dama koy féliciter du ma ko féliciter sax ci parce que jàmbaar la muy def mais c'est un comme un peu le président day rectifier wu gis nga nit nag soo tàmbalee day di ngay remettre en cause di remettre en cause ba am li nga bëgg daf ni hëpp mu jóg topp mbedd yi di bale ak a dindi dem ba ci yàgg mu ni du dem dafa bëgg modèle na dem ci communes yi mais communes yi sax day rëy le modèle rwandais cent maison yu ne communité la mm-hmm. ñoom ñooy bale ñooy toppatoo bu samdee ñu ànd def na ñëpp xam seen morom ku sànni ku sànni ñu amaan la. ñu responsabiliser ñu responsabiliser ko ça veut dire que commune dafay ngan ci moom. Mhm. ba pare bu mu ko yemalee commune plateau kese dafa war a am modèle urbain. am modèle périurbain modèle villageois ak les grandes villes villa les grandes villes villageois. mais il ne s'agit pas seulement de nettoyer. Euh, maintenant on aussi xam nga loolu mooy xam nga soo soo nettoyé def fa garab ndax soo fa deful dara nit ñi dañuy ñëwaat dëkk. stade bi ñoom dañ ko nettoyé ba mu set mais moom def na loolu ah. moom moom moom def na loolu par exemple fii ay kii ay euh, ñaari tali yooyu dañ ne du ñu euh, du ñu bàyyi noonu rek. Mhm. génne gars yi rek. Mhm. Euh, duñ fa def dara dafa ñëw occuper espace. gis nga modèle tubaab bi nag dama ci foofu lay tëjee lu baax la parce que waa Touba seen problème rek mooy fi ñuy xëppi mbalit mi mais doo fa gis mbalit muy taxawaal. loolu lu am la ndax buntu kër yu dend yu ne lu mat fukki buntu kër ñooy jënd seen i bale jënd seen i yëpp teg. alxames si ngoon bu ne ñu dajaloo bale mbale mbedd mi lay ko kenn yor potam ku fa jaani saan juróom bu nu paree ñu naan seen café dem tëdd loolu lu am solo la. macha allah euh, l'environnement c'est loolu euh, loolu am la euh, Mbow delloo ko njukkal si lim ñu indil tey si wàllum environnement. environnement moom képp koo xam ne yaa ngi si yëngu rek yow defaloo ko sax sa bopp de. Mm. Ah. ñëpp nga ko defal ak ñii ñëw. sunu doom yeeg suñu sët yi. Mm. moom la. ñi xarañ di wax léeg-léeg ne ñun suuf si moomuñu ko dañ koo àbb suñuy maam te dañ ko war a delloo suñu ay sët euh, waaye nag euh, li wolof di wax gàcce la yow puso di dox di dox di dox ñëw ba si yow réer mm. Mm. loolu yow euh, sa sa gàcce la dafa am benn xaarandi bu ñu Babacar Kara Diagne di may su ko defee ñu dugal Makumba Diagne moom mi jiitee Proplast